yëglekaay yi li ñu xëyee tey jile dañ ci ànd ak euh, Chérif Chérif ginnaaw bu ma la nuyuwaatee ñu dooree ko ak l'observateur. respecte nga distanciation physique <laughs> maa ngi lay fay. soxna naata ñu commencé ko ak yéen a kaay bi de l'observateur mbiram koppar ak balance de paiement yi compte courant yi ca BCEAO Sénégal déficit a koy yoot su ko ci yenn kaay bi muy loo xamante ni kon danger la ci réew mi boo saaganul kon endettement bi dina exploser gën a yokk buñ sukkandiku ci yéen a kaay beeg euh, président Macky Sall mi nekk ci xët bi ba léegi rek ci wàllu koppar wante ni nag euh, xam naa banque centrale dina ci wax mhm. ay faux billet la euro la ak dollar bin ko xayma daal daanaka euh, toll na ci ñaari milliards yoo xamante ni police moom moo ko jàpp ba léegi nag gaa yi ngi wàññi mënu gënoo pare ndax koppal yi ñoom ñoo bari mais dara baaxut yi xëy na doon ko yaatal ak yeneen i yenn kaay procureur de la république ba woon démb kon def na réquisitoire am bu mujj moom Serigne Bassirou Gueye jàpp ni daal kon ay njuumteem ak tamit loo xam dal matul eh, kii ko remplacé dina ko mottali moom nag ñëw na ci nomination am auprès du président de la république Serigne Mountakha Mbacké di dalal eh, kii di Khadim eh, ba bu Locafrique moom nag am na ay ndigal loo xamante ni kilifa gi jox na ko ba tax na kon mu daal di juboo ak way juróom mu góor Aliou Cissé it ci kanam dina publier listam jëm kon ci li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique bi am na ay surprise bu ñu sukkandikoo ci l'Observateur. aywa mm-hmm. eh, ñu dem ci enquête. enquête ba léegi rek ak yorinu sell ak euh, gouvernance fii ci Sénégal SAPCO bi ñu dénk rek lépp loo xam jëm na ci aménagement Petite Côte dafa mel ni kon boo saagatul moom fayit mi ngi koy yoot eh, gis nga ko noonu ak image Saly Portudal dafa mel ni am na euh, boru lu toll ci euh, cinq milliards de francs CFA loo xamante diggante ak analyse financier yi daal jàpp nañ ni am na ay jafe-jafe yu rëy yoo xamante ni waa SAPCO dem rek gis nañ lan lan fa ci ay employés yoo xamante ni takku Embalo seul contre tous jëm kon ci partage pétrole diggante Sénégal Bissau ak Ndakaaru et puis Abdou tamit mi ngi préparé lu toll fukki junni xëy jëm ci ndaw ñi. Le quotidien. Serigne procureur de la république adieu au parquet de Dakar am ah, mu tuddee ko rek kon sëñ Bass mi nga xamante ni am na nee na daal jàpp ni kii di successeur am dina corriger ay erreur parquet bi tamit nee na musul am ab scandale ba mu ko jiitee ba léegi kon moom Serigne Bassirou Gueye démb kon bi mu tàggoo ki ñoñom fële ca palais de justice bu Ndakaaru 10 000 jeunes yoo xamante ni kon ngir ñu sauver environnement ñi ngi waaj ñoom it ngir daal di leen di jëlee puis maître Malick Sall moom it ñëw na rek ci jàpp ni daal justice mi ngi dox fii ci Sénégal mm, Euh, le soleil. benn une la muy l'archevêque de Dakar monseigneur Benjamin Ndiaye gis nga ko monseigneur parle wax na nag ci li nga xamante ni kon mooy paroisse yi dundam projet église yi avortement pédocriminalité fitna gi ni teg gone yi violence politique jëm lépp loo xamante ni kon wàllu matérialisme la moom ku tedd kon en entretien exclusif la def ak yenn kaay bii di la soleil. ñu dem ci libération. libération mooy li leen wax sànq daanaka ñetti milliards yoo xamante ni toog la dara baaxu ci. Ah, journal baa ngi ni kon révélation ci bi nga xamante bu police daal di diggante Colobane Mermoz VDN ak dëkku Apulaay ba di Cambérène gis nga ko contrôle police nag moom moo tax rek ab oto bu paan 4x4 la kon ñu mu daal di fekk mbir yi décompte bi comme ni nga waxee sànq gars yi ngi ba léegi mais mënaguñu ba pare ñaari suspect yi kon ñu ngi ci régime garde à vue et puis Khadim Ba ak le xalif euh, général des Mourides seen daje journal bi ñëwaat ah, tribune moom ci wàllu euh, Covid bi ah, gis nga ko mu jàpp ni daal dafa mel ni beesukaay yi ak osu yenn kaay fii ci Covid bi particularité sénégalaise face au variant Omicron la ko tuddee tableau bi nag comparé na ko ak yenn réew yu ñu jege muy Côte d'Ivoire Burkina Faso Mali Gambie Omicron mi ngi tax nit ñaa ngi ragal kaay yi nag ñu ngi continuer di yokk mun sukkandiku ci journal bi et puis tamit Amadou Diouf mi daal di wuutu euh, Serigne Bassirou Gueye moom Serigne Bass indi na ay seede ci moom Amadou Diouf ne dina corriger ay Walf Quotidien ci wàllu criminalisation homosexualité maanaam góor jigéen ñu taral daan yi fii ci Sénégal Macky Sall kon nee na entre le marteau et l'enclume fan na ci war a taxaw moom njiitu réew mi journal bi naa nit ñëwaat et puis détournement trésor public ñaari inspecteurs yi yóbbu na leen dungu siin Serigne Bassirou Gueye nee na kon euh, rek euh, jox na euh, leng yi kii di Amadou Diouf mi ko wutu fële ca parquet bu Ndakaaru les échos les échos ba léegi rek faat soxna naata gis nga ko muy impact Covid bi nga xamante ne am na ci njeexital ci programme national Euh, contre le cancer col de l'utérus dafa mel ni loolu léegi tax na kon lu toll kon ci 28724 724 doses vaccin yi nga xamante dañ ko jagleloon seen soxna yi nga xam ne am na jafe-jafe yi ci valeur milliards périmé chaque euh, vaccin nag dina coûter 120 000 francs CFA bu ñu ci journal bi entre janvier ak février ñi ngi woon ci de couverture vaccinale mm-hmm. mais mbir nag ba Covid bi ñëwee daal la courbe yi commencé wàcc ci chute na ci 40 mi dem pour de départ démb rek ngir tàggoo bi moom nag am na avoué insuffisance yi nga xamante am na ba assumer ko et daal di indi seede ci Amady Diouf mi ka wuutu foofu ci parquet ba. ñu jàll ci bés bi le journal ak SAR ak Locafrique mu mel ni kon rek rien encore joué da la da la jàpp jafe-jafe am seen biir démission Samuel Sarr bi coup d'envoi bi nga xamante kon crise la foofa ca Locafrique ak contrat bi nga xamante ni jëm na kon un retrait région yi waa SAR am waa Locafrique am kon ci SAR journal bi daante ñëwaat ci capital bi Serigne Bassirou Gueye mi nga xamante ni kon corrigé ne nee na euh, Amady Diouf dina corrigé ay erreur am Alioune Cissé ñi ngi xaar moom it listam buñ sukkandikoo ci journal bi et puis les deux inspecteurs du trésor yi nga xamante démb kon yóbbu nañ leen ndungu siin mmh, euh, moom it gis nga ko Serigne Bassirou Gueye nee na rek euh, am na lu ko leer ne daal ki nga xamante kon mooy Amady Diouf dina corrigé nag lépp loo xamante Sénégal dafa mel ni mooy jiitale groupe Afrique ci wàllu UNESCO moom mooy fa Sénégal indi ci ay seede li nañu wax sànq tamit ci wàllu cancer col de l'utérus dafa mel ni yi nga xamante daal ñàkk nañ ko rek ndax njeexital li nga xamante Covid bi am na ko ci soxna naata. Mm-hmm. Vox Populi. Vox Populi contrefaçon ak tamit à grande échelle la ko tuddee lu toll ci milliards de faux billets yoo xamante kon jàpp fi police jaar muy police Médina rek ba daal di ndar defkatu ñaawteef yooyu dafa mel daal ñoom seen oto moo paanoon ba tax rek kon ñu daal di jàpp nga ko journal dinaa ci ñëwaat ñoom gën a yaatoom ñu ngi doon wax sànq jiite groupe Afrique fële ca UNESCO ak CD Souleymane Jules Diop ancien procureur moom daal dinay joxe leng ya moom Serigne Bassirou Gueye inspecteur trésorier dem nañ kaso euh, source a ñëw ci rek ba léegi rek gis nga ko muy association religieuse nga xamante ni ñu ngi leen joxoñ baaraamu tuuma ci këpp kees ca trésor duñ dem mujjul am nag ndax euh, këpp tax na kon ñu yóbbu leen kaso démb et gis nga ko sànq muy lii rek ni gars yi di retiré seen carte yi ci commission élect euh, électorale yi dafa mel ni mbir yi daal yéex na trop boo xoolee région par région journal dina ti ñëwaat xool naka la taux de retrait bi toll ci carte électeurs yi ak quelques semaines de euh, des élections locales. ñu waaw mu ñëw rek ci li nga xamante ni mooy Noël beek gis nga jamono yi nag. ni mu ni ko amee mu jëm kon ci li nga xamante ni mooy pandémie bi prix yi ni mu yokkoo ak tamit pénurie yi jëm ci mbaam xuux yi moom moo tax daal fidèles yi gis nga ils sont fauchés nag comme des rats d'église buñ sukkandikoo ci journal bi Marcel moom poosam na moom macha allah mosal na ma si sax dara jox na ma sama ndéwanal ci Noël ah. Marcel boo paree compal mi <laughs> ndéwanal Noël Euh, soxna si gis nga ñëw rek ci euh, Sud Quotidien ak gestion recette hydrocarbures yi Macky Sall kon dañ gars yi dañ ko court-circuité waxin la rek gis nga ko ñii nag ay borom xam-xam lañ bokk ci société civile ak ay économistes ku ci nekk joxe nga ci sa xalaat muy Alioune Tine di Elimane Kane Maysa Babou ak tamit euh, professeur université bi di Souleymane Keita et puis le garde des so aussi mi ngi ci xëtu yéenekaay bi di Sud Quotidien nee na dossier yi daal ñi ngi koy traité jëm kon ci faux passeport diplomatique yi. Mmh, Ziguinchor gis nga ko mi ngi nii camp de base lien yi nekk gis nga ko ca Kigali la ñoom 1er janvier dana leen fekk fanweeri fan ci weeru décembre ci la leen président Macky Sall di jébbal le drapeau ñoom gaynde et puis yi Aliou Cissé nar a génn ci kanam ñoom Bakary Cissé indi nañ ci ay leeral ak tamit euh, ñoom Fatek ak euh, euh, Muntaaru Balde ku ci nekk daal ak ba ci sax Nabi Sarr ndax danañ ci bokkam déet journal bi ñëwaat na ci soxna si. ba tey ñii moom Gakou Mendy Sadio Kouyaté jusqu'au 3 janvier sampab laaj la nag ndax gars yi ñoom ñu ngi ci boxing day bi nga xamante ni kon ñu ngi waajal fële ca Angleterre am na ci sox choc diggante gis nga ko noonu Manchester euh, City ak tamit ñi nga xamante kon euh, moom mooy euh, boxing day bi nga xam ne tey ci dimanche bi wala ci weekend bi lay daal di tàmbali. Mm, jeexale ak sunu lamb jeexale kook sunu lamb ak grand show bi nga xamante ne nar naa dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé mi ngi ko tuddee kon ko convoqué 18 heures sëll bu ndaw muy euh, kii di Ama Baldé moom 18 heures 30 la mais promoteur bi mi ngi rek promettre ne affaire yi dina dina jax waaw les amateurs. Mhm. dina leen régaler moom la daal di ko Nicolaï wax moom nag tàmmal na gars yi yu mel noonu ay innovation mille policiers. lan daal di rek déployer ngir assurer sécurité ba. waaw on l'espère bien Chérif ak li fi xewoon fan yële weesu euh, Chérif laata ngay demaat toog euh, ñu dellu si ci euh, lu mel ni l'observateur ak li mu xëyee tey journaux yu bëri xëyee ko mm, comme Libération Vox Populi muy wàllum trafic faux billets Alaaji Malick ñu ngi wax euh, ay këpp kees ci trésor public ca poste ak yeneen ak yeneen noppeeguñu ci ñuy wax ay faux euh, te du guleet sax nag fii ci réew mi waaye euh, libération moom nee na daanaka ñetti milliards la ñu ngi compté ba léegi jeexagul loolu moom ndax lam laaj bi ñuy samp mooy ndax suñu koom-koom gi du fa nësax ci jamono jii ñu nekk ak jafe-jafe yi ñuy dund d'abord jaajëfal rek euh, ñi nga xam ne ñoo di police ci liggéey bu rëy boobu nga def ñu def ba daal di jàpp ñooñu yor ay faux billets euh, faux moom soxna naata lu ñu ci mën a wax rek mooy ennemi numéro un Euh, bu économie ndax euh, dafay nësaxal koom-koomu réew ci wàllu inflation aussi dafay am ay conséquences yu nga xam ne yu doy waar lay doon euh, ci li nga xam ni mooy monnaie authentique bu baax bi tamit daf ci am ay répercussions. Mhm. mu nekk phénomène bu nga xam ni bu xësee dugg ci réew ba am benn niveau bi ñi nga xam ni ñoom ñooy les principaux bailleurs les investisseurs. Mhm. dañuy daal di ragal réew moomu te dañu dañu koy daw donc mën na nësaxal bu baax a baax a baax suñu koom-koom puni par l'article 119 du code euh, pénal euh, nga xam ne dañ ko criminaliser travaux ab euh, force à perpétuité ku ñu jàpp te mu wóor la ni da nga dugal xaalis bu lewul ci biir réew mi loolu moom moo lay xaar bu dee danga nga am ay circonstances atténuantes mën nga tëdd ba juróomi at wala lu ni mel mais malgré tout ça ñi ngi gis ni loolu mi ngi wéy di am nit ñi nag lu leen ciy dugal mooy xaalis bu gaaw te yomb te loolu je pense que baaxul ci réew ci li gën bon ci économie réew foo mën bii ci la bokk mm, itam Chérif Dia mooy devise étrangère yi muy euro ak dollar loolu dafay tax ba réew yi nga xamante ni euh, fa la nekk lu ci mel ni Union européenne wala États-Unis dañuy ñëw de plus près di xool yëf yi teg ci. Euh, di xool yëf yi teg ci soxna naata ni nga ko waxee noonu la Malick junj na loi bi nga xamante kon moo ko réprimer mais gis nañ fi ab député boo xamante ni tuddoon nañ ko ci. nekkatul député mais ba léegi mi ngi këram mi ngi liberté provisoire depuis plus d'un an mi ngi këram attewuñ ko am na ci ñeneen yoo xam tamit ay kilifa yu ñu tudd ci wàllu trafic de faux billets ba léegi donc bu fekkente ne am na impunité moom mooy indi yu ni mel beneen bi nag ni ngeen ko waxee conséquences yi moom ci wàllu koom-koom moom foo ko natt weesu na ko parce que blanchiment de capitaux baaxul te gis na ni fii ci Ndakaaru ak biir réew mi parce que entre juin ak juillet jàpp nañ fii lu ni toll ci wàllu faux billets diggante Kër Massar à Diourbel aussi ñu def ko donc mu mel ni law na fii ci Sénégal ñoom ñi ngi fi nag les forces c'est vrai que force de défense et de sécurité yi comme ni ko Malick waxee. muy police sax gis nga lii dollar la donc ni nga ko waxee devise étrangère la muy loo xamante ni wala euro boo ko dugalee ci koom-koom bi ñun surtout économie informelle lañ yor suñ maire yi jaay ci koñ yi wala ñi nekk ci trafic euh, di di def euh, transfert d'argent amul loo xamante ni mën ñoo vérifier ndax lii faux wala vrai billet la même franc CFA bi sax pour nga am bariwul matériel bi nga xam mën naa détecter faux wala donc fekkente ne dafa wasaaroo ci koom-koom bi ah, léegi dafa mel ni am naa gis naa lu mel ni ay stylo la rek dangay def nii dafa mel ni gis naa lu mel noonu de mais ñëpp amun ko ñëpp mënoon xool aussi lu ñun lan daan def mooy dañuy lem xam nañ ñu doon naxe lem ndax billet bi dina ubbeek te loolu mënoo ci xam ndax vrai la wala faux di wér te mooy loo xamante lu jara xeex la parce que gangrène bu mag la ci wàllu koom-koom boo xamante déjà mi ngi sooxe yaa ngi dégg ñuy wax wax wàllu endettement Sénégal ak jafe-jafe donc xeetu xaalis yi bu ni dugg na lewul ñu koy dugal ci wàllu immobilier di ko dugal ci yeneen ni secteur moom mooy tax kon économie Sénégal du mës a soxaliku donc il faut combattre ce fléau mais aussi yoon di di di tëddee njaaxaanaay képp koo xamante ni tudd na ci ak ndomba tànk boo mën a am ñu teg lay daal. Euh, la jàppee. Mhm. yoon la ko war def na ko ci parce que comme on a l'habitude de le dire gis nañ fi mhm. Ngaaka Blindé di rappeur. Mhm. moom ñu jàppoon ko ci lu ni mel te moom nee sax tournage clip la woon. moom gis nga yàgg na ci kaso bi euh, Chérif mi ngi koy fàttali am na mhm. benn député ak ñeneen ñoo xamante ni ba léegi daanaka euh, fa la lépp doxee tàbbi géej. comme mhm. comme on euh, si on peut s'exprimer ainsi. effectivement c'est à se demander est-ce que sax bu fekkee ne ne yoon def na liggéeyam dina tax pratique yooyu ñi ci di ko wàññi. Euh, parce que finalement scandale yi au fur et à mesure ñuy gën di dem mu ngi gën di yokk euh, donc euh, c'est une grosse somme parce que maa ngi gis ne ñu ngi wax 2 milliards. ñu ne ñu am sax jeex na. donc li li li ñu révélé mooy c'est 1,5 milliard en en billets noirs et puis pour l'instant et millions de francs CFA à peu près en faux donc maanaam dañu naroon billets noirs yi itam estampillé ci ay ay logo seen pour faux yi en tout cas mooy lu waaj doon wax ak fu réew mi toll mm-hmm. instant euh, on ne doit franchement pas euh, sa à ce à ce genre de pratique là ndaxte crise bi mu ngi <clears throat> mu ngi fii mu ngi mu ngi sonal askan bi donc euh, lu ñu war a def rek mooy euh, mooy gën a gën a wàññi li maintenant nag comme li may wax je suis très pessimiste par rapport à, la suite que ça va que mhm. euh, solution bi dama xamul fan lañ ko mën a jëlee ndaxte même bu justice defee liggéeyam comme je di on se demande si on va pas encore récidiver donc mm. euh, voilà foofu la foofu la mbiri toll le mal il est profond actuellement mm. Maroun léegi dañuy jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.